sama réew Sénégal Sénégal suñu réew suñu gaal suñu gaal bëgg naa la sama biir xol biir xol def la sama biir xel biir xel

lagi sama jamu jamu ya labun bimo namu, daku terang gagi yatu yatu daku terang gagi maju maju maju شعبي مسلمة مسلمة كم ظالم في سنغال سنغال Lion đi nhập bà bên nó Bên nó xa mà rêu Senegal Senegal Sunyu rêu sunyu فإنها لسما بالقلب القلب إنها لسما بالقلب القلب أمر السما جم جم يعلمون بمقنعه نما رب ترى يا गु nga daan dal rek dal wàcc kay du réew suñu gaal suñu gaal bëgg naa la sama biir xol biir xol def naa la sama biir xel biir xel am laa di sama jàmm yàlla buur léegi léegi fi mu toll nii ñu ngi ci tool bi di def tour bi mën nga ñu wax euh, fan la ñu jëm nii actuellement nii. waaw xanaa ñu génn fii rek dem ci beneen terrain ba la beneen pivot bi mooy pivot 3 bi ci magasin bu bees bi fi nga xam ne fi la ñu war a def chambre froide salaamaaleykum askan wi ñu ngi àndoon ak tey waa TGV. ñëwoon tey fii ci Mbane euh, di koo xamante ni dëkk na ci euh, nekk na ci bërëb bi di la muy euh, Baye Pape Guèye moom lañ ñëwaloon tey di ko defal benn reportage xam li nga xamante ni moom la fi nekk ak liggéeyu am solo bi nga xamante ni moom la fiy def ñu ñëwoon pour askan wi teg bët ci loolu loolu nag. Euh, moom lañ ci àndaloon tey ak euh, télé bii nga xamante ni moom mooy euh, la télé des valeur incha allah fas yéene leen wan lépp loo xamante ni amal na ko ci liggéey ak solo si ak njariñ li ñu ngi dem nii tey di leen présenté ki nga xamante ni moom mooy bay Pape Gueye ñu gën koo xam ci Njambe Gueye ñëwoon tey fii nga xamante ni moom mooy dëkkam bi nga xamante moom lay liggéeyee Baye Pape Gueye moom ngeen jàkkaarlool nii dëkk ca Kër Codé waaye nag fii di bërëbu liggéeykaayam waaw Baye Pape Gueye tey waa TDV ñoom ñoo ñëwoon seet la ah fas yéene découvrir li nga xamante moom moom mooy liggéey bu am solo bi ngay ama amal fii d'abord dañ lay bàyyi nga présenté wu wax ñu fii nu mu tudd ak euh, ban liggéey nga fi nga fi amal. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah waa ñu ngi leen di nuyu xam naa ñoo ngi jégalu ci ni ngeen ñu fekkee mooy da ngeen ñu fekk ci heure tool yi ñuy liggéeyee bi ci des mooy. Eh, sunu baat dafa xaw a sonn dañu tooy man la Pape Gueye man maa ngi dëkk Kodal Sane fii liggéey moo ma fi indi donc fii nag société bi ma fi yor man maay gérant société bi en même temps nekk actionnaire ci di ko wax Témé Agro Sarr ci sama làmmiñ ak làmmiñu sama frère bu baax yàlla muy ko yàlla yërëm muy Ndiaga ma xëy woo un jour wax ak man ne ma nañ jéem a xool nan lañ mën a dimbalee sunu doom yi ñëw ëllëg ak suñu sët yi ndax tukki bi day jeex donte ñu raw nan ba pare xale yi mi ñëw yëpp mën nañu am coono te booba ñu ngi jaar ci ndox c'était 2006 mooy ñëw Sénégal dem Ross Béthio ñaan fa ñu may ma 200 hectares mais dafa am xorom mënul def maraîchage te maraîchage lañ bëgg a def moom mu doog a ñëw fii am fi 100 hectares. mané ko doyul mu amat benn mané ko doyul ci lay amat 800 hectares lepp di 1000 hectares ma ñëwaat fi ñaanat 300 hectares muy 1300 hectares donc waroon fi am yu rek a war commencé exploiter donc ci xalaatam bu rafet ak xam-xam bu rafet biñ commencé liggéey liggéey bi moom yàlla ya moom ko ma xam ne man sama liggéey mooy bàyyi li ma doon def ñu taxaw loolu da doo investir alal ju toll noonu pare ak Sénégal yi nga bokkal ñu am yaakaar ci tool noonu ba pare nga bàyyi ko mu yàqu loolu moom ma indi fii ma bàyyi sama activité yëpp Italie bàyyi sama carte de séjour waaye damay wax ne yéex naa def su ma ko xamoon nii dana gën a donc parce que looy wuti ci àll bi rek da ngaa xamul waaye fi société bi nag day dox ci yoon lay dox maa du koo xaay da ngay bay nii rek ñëw rek ubbi say kii di bay déedéet fay wàccoog li état soxla parce que état moo na may suuf bi mais projet bi moom itam dafa am institut am règlement intérieur am am nii am am registre de commerce am jël ay nit employé di leen fay salaire salaire bi inspection de travail moo koy joxe ma yor leen fii ñi dëkk Njàmbur ñi dëkk Fuuta ñi dëkk fu nekk ni dëkk na fa ndax daanaka bu ma limee damay jum ndax Burkina fa Burkina Faso yoroon naa ko fii ak Mali donc kon ñëpp pour ñëpp la loolu mooy demee àgg sama jàmm jàmm yàlla buur bi moo ko nam ñu fi bàyyi nag mooy village bi ñu ñëw nii di Témé bi ñu fi ñëwee fekk na mu nekk village bu doy waar village boo xam ne euh, am nañu suuf waaye amuñu kanaal kanaal bi man maa fi gas moo ngay seen nii ci gannaaw gannaaw miir bi nii nga dégg pompe bi kii noonu man maa fi gas dañ ko gasee ba noppi population yi moo tax leen machine teg ci pour jàppale leen mais ba tey doyul ndax boo leen machine amuñu financement man maa doon dugg sama dugg dugg wuti financement di liggéey ak ñoom ba yàlla def kenn ku ci nekk tey eh, kër goo dem tey da fekk benn oto mbaa ñaar bu duggee ci dëkk bi léegi da ngeen ci xam dara te chef de village dëkk bi ci man la doon liggéey ak i doomam mais tey benn nit muy Mor Kane der boobu maa ko téye ndax li ma xam ci machine yi moo tax dama koy soxla tracteurs yi mooy si cartouche yi mooy vidé mooy donc ndax chauffeur ancien chauffeur la woon dama téye ko waaye fan yi ma ko soxla laa koy téye bàyyi ko mu loolu motax mu dess ci man. man morder la tudd ba nga dëkk témé waaw man ma ngi liggéey ak pop Gueye 13 ans ñoo ngi liggéey fukki at ak ñet ñoo ngi liggéeyante fii si témé muy nit ku baax ku ku jambaré wax dëgg yalla bu mu si nekkee ak légui li ci nekkon ci nit barana trop motoon nañu fanwer yu ci nekk ci dëkk bi tay ci tay man rek ma ci dess ñepp wax dëgg yalla seen affaire baax na ba ñi ngi see seen toolu bop ñi jënd seen machine ñi jënd seen leneen di liggéey. ñi joggé njàmbur it maa leen indi fi ñoom it ma xam ne amuñu xam fi kenn ma defal leen bâtiment bi ñu nekk si ba di leen wutal restaurant ci man di xewlo pour ma dem liggéey. Dame Gueye Kër Codé waaw liggéey rek xam naa ne liggéey rek moom fi indi allah depuis 2008 fin 2008 dal, ba léegi maa ngi amul benn jafe-jafe. alhamdulilah sant yàlla tabaraka mi ngi jëm ko mi ngi yokk daal bañ commencé woon ak fa léegi daal wuute nañ vraiment macha allah yàlla jëm gën a yàlla gën a jëm kanam daal. lii daal mooy société bi agro social boo ko tax a jóg jàppale gox bi ba tey gox bi naat na boo soo leen laajee daañu téeméer agro bu seen canal fàtte peel bi dañuy jël maa leen koy jox defar canal yi soo demee cago noonu. boo demee dëkk yëpp fii yëpp dañuy soxla ndax bu tawee ba pare canal yëpp dañuy sakk te bu ñu sakkee dafa nga am peel te peel bi moo leen dig peel moo leen dig tey du ma leen teg dara loolu dañuy dem ba mën a fay rek fay ma defal leen ci prix bu baax it ndax peel yi ñuy jël quatre-vingt mille francs par par heure man trente cinq mille laay def ku si bëgg sa tool it ma bàyyal la sama tracteur yi donc loolu mooy jëmee ak maa ngi dëkk fi si Temele waa quoi nekk borom dëkku Temele waaw euh, homme de développement ku mën a jiite senegal ku ñëw Temele pour suqali ko si gàttal daal nit gu baax a wax si moom day jafe mun nañu xëy di wax ci moom ba suba te du jeex waaw li ñu ko yéene ak li ñu ko yéene Sénégal dénk réew mi rek parce que attan na ko mën na ko mais fekkoon na ko ci suuxe bëgg ndox te amuñu ndox. bëgg bay te mënuñu bay parce que euh, fi ndox mi nekk ak fi tool yi nekk xaw na woon sore tuuti mais si seen projet moom mii ak ñi muy àndal ñoo fexe ba ndox mi dem ci kaw voilà ñu bari doon fa liggéey man mii doon wax ne nekk boobu dëkk bi tey sans papa nekkoon na doon liggéey ak moom waaw ak ay mag ñu bari nekk si dëkk bi waaw ba tey gi aussi noonu la fiy doxee waaw lépp daal yokkute la yokkute la si dëkk bi moom. Euh, man si daan der laa tudd. yàlla def na ma mag si kër gi si ndeereen téeméer lewa man la fi yàlla bàyyeeku chef de village yi ngeen doon bi bàyyam bi gaañu ma topp dëkk bi kay gis nga ko fu mu koy indi kay moo di gis la jumaa ji si sabam la jage jumaa jaa ngi nii ay 7 kooku di caaxaan dafa am condition yi ñu waxanteeg moom mu koo def bu jotee rek mu def ko lu mu ne si jox na def ko si jàkka ji gis nga jàkka jaa ngi ni mu mel Pape Gueye me daal ku baax la lu gën a gàtt ku baax la yàlla na yàlla bàyyeeg moom daal. Gita Wade laa tudd Pape Gueye bi mu ñëwee si dëkk bi yaakaar naa dëkk bi am na yokkute ndax ñëw na fekkoon ñun ñii daaw na woon liggéey bi mu ñëwee nag jël projet bi macha allah su ñoree xale dina liggéey mag dina liggéey te ñun ñi nga xam ne ay mag lañu daf ñuy liggéey bu sedd bu nu wàccee mu fay suñu xaar ñu dem seen yoon. boo mu fi duggee ba léegi sii wax dëgg yàlla dëkk bi kanam la jëm waaye delluwul ginnaaw te noo ngeen ñaan yàlla mu gën a jëm kanam noo ngi ñaan yàlla tamit projet bi yàlla gën ko dooleel ndax projet bi am na solo si dëkk bi am na solo si dëkk bi ku bëgg a liggéey liggéey nga bu xasee ba ñor fu nekk ne xale lu mu ndaw ndaw dina am xaalis kenn dootul banque bu xasee ba ñor macha allah dëkk bi day tooy xepp foo romb xaalis baa jël laa ñëw dañu yàlla nag yàlla jëmee ko kanam gën ko barkeel gën ka dooleel taxawal ko bu baax a baax loolu daal la ñu ñaan yàlla si moom. waaw man de ñu gën xam sama tur si Omar Der ma dëkk nag dëkk bi ñuy wax Temmeele wa papa Guèye de ku ku ku ngeen de laaj lu jëm si moom si lu ñu xam daanu si sawar ndax papa Guèye ànduñu benn at papa Guèye ñaari at ay at yu bari la ñu ànd te nit guy soppeeku ne bu ngeen amee ñaari fan mu woon la jukkoom te papa Guèye mi bu ñu àndeek léegi comme ni ko sama grand bi waxee léegi maye na fi sëy ma du def tudd ni ki fi ay ak kii doom rek si amagul koo xam ne tudd ko ko mais xeetu teraanga bu nekk nag Pape gi seqal ko ak ñun muy lu ñu mën a wax loo xam ne dañ ko wax nit ñi jot ko waaye nag comme yàlla def na indi ngeen télévision nga xam ne adduna bi koy seetaan daan ko ba ñëpp jot ko Papa gi mii nit la goo xam ne ku si amoon benn sooy ba wut si ñaar fépp nag foo xam ne fii nag nit nit gu baax nga fa teg tànkam teg na fa tànkam nit gu yiw la. nit gu bëgg dëkk bi nit gu nu fonk la nit la goo xam ne gi xeebul kenn téléphone am bee boo demoon ci mbedd mais forke yit boo xam ne di ci bind numéro téléphone Pape Gueye ubul portam te fi mu nekk du man maa ko def yàlla moo ko def lii mu nekk yàlla du man yàlla te am na ña nga xam ne am nañu lu gën néew li mu yor te bu boo doon bëggoon jot léegi daa daa toog ay diir ay ay temps boo xam ne bii bëgg jot si moom mu të la Pape noonu lépp lu mu am yomba nii lépp lu mu am bokk ko nit ñi yomb na nit Pape Gueye daa ma gën a la wax ni daal Pape Gueye wax dëgg yàlla nun de njaamur gi mu dëkk bu fekkoon di ko doon jënd te am njëgam Pape gi du dem li wér te wóor mooy bu ñu ko doon jënd rek Pape Gueye du dem parce que suñu njëriñ mooy kii nit day am njëriñ nit bu dee nit dee jooy yi bare métti lu yi bare nit ku am njari la te Pape Gueye mi nit la goo xam ne kii yàlla xam na ni billaahi wallaahi du li ngeen nuy télévisé di laaj moo tax nuy wax li nu xam si moom di ko dundal la sunu grand bi wax naka léegi gis nga bu ñortee dara si tool yi dafa jël machine am teg si bind këram kër par kër du yónni kenn kaay jël si kër par kër kenn ku mu jox la teraanga boo xam ne si tool bi la jóge day rey nag sa tool yi bind xam ne dëkk bi bind dëkk bi kër par kër kenn ku ne oto yi taxaw jox la li li nga ndawaloo te wallaay mën na ko yóbbu këram wala mu lekk ko waaye daf ko bokk ak kon Pape gi daal suñu xol la ñaar benn lu ñu lay bàyyi rek nga présenté ñu fi fi ñu nekk nii. waaw fi ñu nekk nii mooy mooy sama centre Témé Agro ah Témé Agro fii mooy fii mooy lieu bi nga xay fi la sosoo fi nga taxaw nii donc terrain la boo xam ne moom moo ko moom boo xam dañ ko délibération commune bi moo ko délibéré Morkandeer moom ko joxoon mais ñu dem commune ñu miite ko ndax délibération bi ndax itam loolu dafay jaadu mooy terrain bi nekk nii donc Témé moo ko moom fi la jëkk def ay matériel am na yeneen magasin feneen nag pour yeneen matériel ci des. léegi jëmm ji taxaw moom moom mooy lan moom ak. waaw kii mooy magasin dépôt la. dépôt boo déggee mooy engrais yi. fii koy dañuy ànd rek ñu dugg ci biir nga waaw waaw. waaw Mor. bu jeexalee. waaw bu jeexalee da nga may woo mu fay benn pompe bi. Hmm. voilà fi mooy magasin dépôt bi euh, fii dafa am ay engrais yu variés yu fi nekk yoo xam nañ koy soxla bii calcium la nitrate de calcium mooy bële bii sulfate de potassium lañ koy wax bii dix huit quarante six lañ koy wax mooy gis nii bi dix dix vingt lañ koy koy wax mooy bële bii urée lañ koy wax mooy urée donc yi mooy yi nga xam ne engrais yi nga xam ne Euh, li ñuy bay da koy soxla li ci def ay mat ay machine la bii machine u gerte la pour ji gerte mboq bépp garab bu mag moo xam ñebbe daf koy ji kii mbandu traitement la machine bala ngeen seen nalee ci gannaaw moom moo doon perché jatropha bi tabanaani bi mooy machine bala ngeen seen yëpp ay machine la machine bi dagg fer la bële am na machine yu bëtt fer parce que dara manqué wu fi matériel yëpp dañ ko dañ complet la même poste soudure yëpp dara manqué wu ma téeméer agro amul benn matériel bo xamné ne dana ko soxla diko ko wuti fenen amul donc le traitement de traitement la de seen pour attaque amé mok bi ñooy le léeg attaque dem ci toli wala nga nga def probation bala bala attaque am mo gën do do xaar ba attaque am do lan moy lan moy attaque expliquer ñu. moy ay mouche blanche lay doon wala ay verre yuy lekk gàncax gi euh, yooyu am na ci xay xam ne bët gis am yo xay ne ko gis day nin rek nga xamné mi ngi mi ngi def affaire préfet yooyu da dam koy traité pour rey leen yii moom la def tracteur yi lañ koy monté mu yóbbu euh, vingt cinq mètres aller retour bi vingt cinq mètres noonu lay traitement bi def nga def mille litres ndox ci biir def ci produit bi ni mu toll ndax dafa am mille litres yooyu bu fekkee ñaata hectare lay daw ngay xam nga ci produit yi affaire agronomie la donc machine bu oignon la day soble. mën nañ koo xool. Ah, machine bi waaw gëj naa ko utile attention attention. gën naa ko utiliser nag ndax boo ko utiliser population yi fii duñ bu soble jotee ñu liggéey mooy machine bi moom day dagg day dagg oño mille sacs mën na def mille sacs par jour donc machine bi efficace la bu gaaw la moom bële ñuy ànd tapis bële ñuy ànd tapis baa nga ne ci gannaaw ñoom ñooy ànd lii ay quelques matériels yu nekk fii am na yeneen yu nekk ci beneen magasin ba yeneen tracteurs yi ñu ngi tool yi xam naa su ngeen demee bu jógee pompage bi ngeen mën koo jël. waaw Baye Pape léegi bu ñu jógee fii euh, fan nga ñu yóbbu. waaye dem pompage fi ndox mi jóge pour ngeen xam ne téeméer ak fi mu jëlee ndox mi sori na na 4 kilomètres la ak fi muy liggéeyee loolu itam dafa jar xam. ndax mën nañ faa dem. waaw incha allah waaw kon ñu dem ànd ak sunu cameraman. ñu daal di dem rek fi nga xamante ni moom mooy euh, bërëb bi ci topp bi ñu war a visiter muy pompage bi. moom ndaw ñi bëgg na leen bëgg na mag ñi képp ku mu gis day tooñanteeg yow di kafanteeg yow ba léegi bi mu ñëwee mi ngi may tooñ fi mu tëdd nii ku mu gis rek day kafanteeg yow dafa wàcc boppam daal xale mag la yemale képp ku mu gis dina foog yow reeg yow buñ demee tool yaat ni lay kafanteeg ñun di ñuy liggéey boo ñu wàcc day foonteeg ñu di kafanteeg ñu muy xale muy mag la ñëpp la yemale. waaw xale yi na def yéen euh, da ngeen a xam ki ngeen taxawal waaw nu mu tudd. Pape Pape Gueye. Pape Gueye waaw. Pape Gueye xam ngeen fu mu dëkk. waaw fu mu dëkk. la dëkk. kan mooy Pape Gueye. lan moo tax ngeen tax lu bëgg. ndax moom dina joxe xaalis. waaw. naa ñu naan daa nay du joxe xaalis. Ah, day jox nayul ah. bu leen ko joxee. ndax dana doon loo xamante ni day day day doon bés bu nekk wala day doon loo xamante ni ba bu leen ko joxee day yàgg. waaw jërëjëf jërë jëf merci. Sénégal eh, sax daanaka du pompage ba waaye dañ fay jaar fii moom mooy fan waa fii kër sànc la bu defar xam nga di ñëw fi parce que nawet dafa donc coono boobu dañ bëgg a tuuti bu campagne jotee ñu mën di yem fi ba campagne bi jeex xaay boo amul yite isolation doo fa dem loolu moo tax jéem a xooloon man defar kër gi fii bureau ak ñaari néeg comptable bi mën na fi nekk boo amee technicien agronome mën na fi nekk am na quatre kii donc pour ñun loolu moom mooy kii bi waaw allah Modou Lo Modou Lo yow goo génn goo waa ngi fii de yaatu dëkk ku teranga maandu maandu xam euh, fi ñu jóge ak euh, fi ñu jëm nii di euh, pompage ba ñaata kilomètre la ñaata la daw. waaw pompage bi de moom xaw na sori tuuti ndax bu fekkee moom village bi la moom presque un kilomètre moom village bi waaye moom fii ndox mi di génne moom nekk na quatre kilomètres waaw. dafa mel ne tamit ci yoon bi nii danoo gis ay tool yoo xamante ne nii dafa nekk ci sa booru. li nga ti moom mooy sa canal waaw ndax ñoom euh, dañuy utiliser sa canal di bay ak wala nu mu demee noonu. waaw mooy li ma la waxoon bu jëkk rek xam nga ñoom suuf bi amoon nañ ko waaye mënuñu ko woon a bay man maa leen ci génnee ba tey kenn ku nekk yëpp nga gis nit koy bay ci bi lañ koy mais bu njëkk amuñu woon financement waaye li la wax jàppale bi ma leen doon jàppale ñenn ñi ci bëree bëri ci lañ jógee ba mën a demal seen bopp te ñoom ñëpp ci ci canal boobu dañuy arrosé canal bi man. at bu nekk maa koy defaraat te yàlla tax ndax man irrigué tuma ci eh, at bu ne naa def un million cinq cent mille ba deux millions pour defar ko ndax bu tawee day sakk ndox mi day eh, taw xam nga bu day dagg suuf si day am ñax mu ci sax ndox mi du dox maa ngi koy soog defar ni bay door a pare yaakaar naa beneen di démb ci ngoon la pare comme li féete lag bi ndax foog nga defar ko mu dugg ci lag bi bu ko defee ñoom ñu mën ci euh, di xewlu ndax su loolu amul ñoom ba léegi mun ñoo bay ndax amuñu doole defar canal bi ah wax dëgg yàlla bëgg nañu la amuñu doole defar ko te may dama warlu canal bi di ko defar at bu nekk te bañ leen ci laaj dara. kon dafa mel na yegg na nii. waaw waaw pompage bi ngi nii. parce que euh, moom la ñu jàkkaarloo nii dama ak lii ñu eh, courant bi ni mu ngi moom itam waaye lépp ci xéwalu suñu borom li euh, ma dama koy faral di waxee banque mondiale. li ngay gis nii mooy courant bi moo ñëw fii waaw yëpp yàlla dafa dogal xanaa naa waxoon naa ko sama émission man maa lijjanti ci banque mondiale ba amoon situation complète moom la ma indil courant bi fii ba quatre kilomètres cinq cent donc machine yi biir euh, muy pompe yi ñoom ñoo ma waaw pompe para que plus de 60 millions ñoo ko jënd fay ko comme ñëw jógee Italie ba ñëw vraiment ay di ko indi ba fii lépp Sénégal Sénégal ñu ngi fii ci machine pompage bi bi nga xamante ni moom moo gérer lépp lépp luy ndox jëm ci euh, société bi nga xamante ni moom mooy agro euh, SAR bi nga xamante ne moom mi moom moo ko jiite. waaw léegi fii de ñëw nañ fi. Mhm. dafa mel na dégg nañ ci biir. am bruit machine buy tourné. machine boobu moom mooy mooy ban. waaw mooy pompe yi rek comme ni ma la ko waxee woon mooy pompe yi euh, mooy yóbbu ndox mi ci 4 kilomètres donc xam nga bu yóbbu 4 ndox mënu nekk pompe bu ndaw wax mu nekk pompe mag. ci dex gi la koy jëlee dex gi mooy mu ngeen jàll nii mooy canal bi mooy ma gasoon pour population yi léegi mënatul ci léegi dama def tiwo tiwo bi moom nga gis ne ca biir moom ngay moom mooy quatre cent tiwo bi moo jaar ci suuf pour yóbbu ndox ci tool yi parce que population yi ba ma bokk ñoom canal bi des fois day day toujours day manqué ndox des fois donc moo tax ko léegi ñoom man def tiwo quatre kilomètres cinq cent yi fii pour mu jaar suuf dem ndox moom ngay dégg nag riir moom nga dégg nag mooy pompage bi moom mooy yóbbu ndox bi mooy ndax pivot yi mën a irriguer waaw. waaw ginnaaw loolu dafa mel na dam fee gis euh, kenn ku ko gérer kooku gardien la wala moom mooy tourner machine moom moo ko yor wàllu machine yi. waaw kooku pompiste la. Mhm. moom bokkul a gardien bi am na gardien. Mhm. yu fi yendu am na gardien yu fi fanaan ndax fii àll la. Mhm. machine yi nga gis ni ci biir yëpp. mu jóge Italie. Euh, courant bi installation bi ba dem ba dem ca pivot ya fi ba ko soxla

yalla def la sept yoy man ma ci gënoon a baaxle maa ko numéro 1 donc man ma jamon 125 millions ñi tax am nañ cinquante millions ñi ay soixante millions parce que ay fonds doon joxe rek waaw. waaw ah, jëf dégg ngeen ko nimu ko nimu ko waxee waaye nak ku wax machine ak euh, nimu toll ni ak euh, li nga xamante mom lay def wax jafé euh, jafé jafé jafé technique ndax mas nga ci am jafé jafé ak bo ci amé jafé jafé nan ngay gérer jafé jafé bobu wa machine yi xam nga machine automatique la yombul. Mhm. Euh, il faut que nek def informatique pour man ko mën doxal machine yi nga gis ni parce que dafa am clavier am am am am dañ koy mémoriser dafa am tête boo xam mooy même dañ koy mémoriser ñaata mètre cube nga soxla par heure parce que machine yi benn bu ne muy génne deux mètres cube par heure donc li ma la wax mooy tey forage yi gën a mag li ñu am ci dox moom la machine bi di génne par heure di ko yóbbu ci ci terrain bi parce que millimètres yi ñu soxla pour pour irrigation bi moo bare donc problème yi ci am mooy des fois am paanu courant ci suuf câble yi dagg ci suuf doo xam fu mu dagg da nga yaa koy jéem a détecté yow te yow moom machine bi koy détecté mhm. loolu lu jafe na mhm. waaye yàlla mi ngi ci dimbali rek yi muy am yëpp daañu xam fan la ñu réparé ko mhm. machine yi des fois mu dem xëy na karaj du dox te eh, moom itam damay ñëw rek mu jël kii bi mémorisé waat ko lu na nga réglé waat ko ndax réglage bi mu ngi ci biir mën naa la koo wan xam ne boo ko tam bay ba rek machine mécanique ba ñëwut électronique ndax kii électronique la automatique la yaa koy nga soxla ci ndox ñaata baar nga soxla mu jox la ko donc loolu soo neexee nga rayee nag automatique bi du wut mécanique bi mécanique moom da taal rek mu yóbbu la ndox mi benn amul wàññi ndox mi amul yokk ndox mi voilà en cas de panne ndax da ngaa am say technicien bopp yoo xamante ne nii euh, société bi da ko recrité wala euh, da ngay jëli technicien feneen ñu la koy ñu la koy defaral non bu dee machine bi moom la plupart dañuy woote itaal rek mooy ni ko ñi ko liggéeyoon buñ dem ba jaaxal dañ leen di woo ñu commencé ñoom ci zéro defal nangam defal nangam defal ba ba ba trouvé panne bi. ndax machine yi pour trouver ku la ko liggéeyal fii ci Sénégal it wax dëgg yàlla du yomb lool ndax benn mooy am na sax langue français am na langue kii waaye langue bi loo maîtriser langue bi te maîtriser boobu machine bi ci boppam. mën nañu bind ci langue bi loo xam ne mën nga koo liir te doo xam lan la donc nag yàlla dañu dimbali comme italien

ni mu développé ah, am na ni muy jotanteeg ñoom jokkalanteeg ñoom ba nga xamante ni ah, dina mën a defar paan-paan boobu kon loolu lu am solo la eh, eh, léegi fu ñu fu ñu war a demaat nii. waaw eh, xanaa bu ñu jógee fii léegi. ñu jéem a dem tool ya. tool ya. dem xool beneen magasin bi. Mhm. xool pomme de terre bi. Mhm. xool it ya ya ya xaw ci tool yi rek incha allah. dèjà jóge nañ fi nga xamante ni moom mooy compas bi war a jëmaat ci tool yi. ñu ini nii jëm ya. tool yi léegi xanaa bala ñu faa yaakaar yegg rek Baye Pape ñu amaat yeneen question ku wax eh, bay wax eh, marché bi ngay écouler sa marchandise say produit ndax eh, bu ngeen demee bay ñor la di ko ak yoon ni mu mel dana am handicap ci production. waaw handicap bi am na ndax yoon bi. waxuma sax booy génnee marchandise mi di ko yóbboo yooyu waaye dem sama kër rek damay wari côté Saint-Louis te fii nii cent kilomètres la pour ma dem pour ma dem Louga cent kilomètres net la donc te bu yoon bi baaxoon fii laay jaar donc maa ngi jaari Saint-Louis mu nekk ay deux cent quelques kilomètres waaw loolu métti na waaw bi ci def mooy fi may xëy di liggéey si nii moo tax mu ci defar kër googu pour mën a topp si fii parce que Richard Toll googu yoon yi baaxul te chaque jour nga def ko deux aller-retour léeg-léeg wala wala benn aller retour te tamit vingt trois kilomètres ak Richard-Toll ba tey handicap la waaw nga doog indi nag booy génnee marchandise yi waaye handicap bu rëy la xam naa bu ci état mënoon a jàpp ah ndax moom loolu moom la war dana baax loolu ci ñun. dëkk bu mel nii ak économie bi ni muy doxee ak euh, li mu géré ci ci Sénégal wax dëgg yàlla lii waroon na doon loo xamante ni nii ah. euh, infrastructure yoo xamante yu wér lay doon état amal fi. ndax ci économie euh, réew mi lay lay lay rek ndax defuñu dara loo xamante ni ñoom day dugg seen ay doomu doomi Sénégal lan yu jóge fa ñu jógee ñëw investir euh, war a doxal seen dëkk kon nag mesure d'accompagnement yi ak lay yombal seen liggéey ñoom état moom moo ko moom moo ko war a def ndax ñoom fan war a yem rek ña nga ca yem ndax ña ngay bay ña ngay produire ña ngay investir fa seen doole yem kon nag dafa am loo xamante lu ci mel na yoon tali bu baax nga xam ne état moom moo ko jagloo dëgg yàlla loolu ñoom ñi ngi ci ci ndimbal ndimbal boo xamante ni dañ nañ koy defal fii ci seen dëkk yi rawatina bari na fii waalo boo xamante ni ña nga fay bay la fay jóge eh, ci ay rendement tool doon na lu am solo kon nag état bi dina leen jàppale dina leen jàppale ci yoon ba ñoom seen marchandise seen produit yooyu ñu mën ko écouler dana ma gën a gaawee ndax da ngay gis fii ku bay la muy bay mu yàqo ci loxoom ndax lan ndax mënu koo génnee waaw kon nag loolu moom ñu ngi koy benn cri de kër la boo xamante ni euh, am nañ ko fii ci dëkk bi moom bi nga xamante ni nekk fi un grand producteur euh, sànni nañu message boobu kon nag euh, gouvernement bi fi nekk nan leen jàppale ci loolu ndax kenn deful lu gën a noobul ñoom li ñuy def. ñaari tool la benn baa ngi ñu njëkk a dugg beneen baa nga ne rek kon njëkk ci beneen bu ndaw bi xaye ni ne fii la magasin jëm ci magasin bi nga xam ne banque fi defal année bi passé pour bëgg ko def chambre froide ci côté ah, muy magasin boo xam ne nag ah, wax dëgg yàlla du ma ne amul ci senegal waaye bëriw ci wax dëgg yàlla bëriw ci ndax itam booy liggéey da ngay liggéey liggéey boo xam ne yow soo fi jógee say sët ak say sëtaat bu ñu ñëwee dañ fi fekk loolu di ko jariñoo loolu mooy liggéey waaye liggéey boo xam ne yow rek bala ngaa jeexal mu mu yàqu wax dëgg yàlla loolu lañ ci doon bañ moo tax fondation bi magasin bi su ma leen waxoon di dem euh, kenn gëm ndax liggéey bu mel noonu te itam dama jël lan ci dem maanaam bi nag ñi ci xayma ñaata euh, fondation bi mat na nekkoon na ay cent cinq millions

xam nga 60 centimètres lépp bi toog fer mhm. ah mënul euh, mënul bañ a cher ndax lii soit euh, maa ngi la guddaay bi mhm. euh, côté bi nekk nekk 22 mètres donc te lépp mu nekk 60 centimètres encore donc fii mooy magasin bi ah yàlla dogal na mooy itam ay matériel a ngi fi mhm. yoo xam ne matériel agricole la bu ñu nee bee mooy machine boo xam ne day planter. oignon soble tey soo ko amoon pépinière bi machine bi tracteur bi moo koy monté man mën ci yéeg ci kaw au leen koy defee sa loxo ci suuf mu dégg dina jama xaaxaam bi doo def cinq personnes yéeg ci kaw rek boo àggee nga am cinq lignes boo ñu ko amaat cinq lignes donc toog ci kaw rek di teg pépinière bi donc muy voilà kenn de toog fii kenn toog fii kenn toog fee cinq personnes na kon daal lii moom mooy machine bi nga xam ne moom mooy ji du ko ji ba koy jiyee nga ne la ci ba. am bu koy ji bi mom pépinière bi su maté ba pare nga waron jël loxo di ko bi mu répliquage hmm. lay def hmm. mi ngi dox ni waaw ah, pour la année bi année bi année bi rek lañ ko laa benn at lañ ko gun bi ah, ci ci am gannaaw. giri bi moo koy pour bi ñuy monté magasin bi. Hmm. giri boobu ngeen gis ci tool yi mooy monté kii. nit ñi dañuy ne ci biir pour liggéey mu yëkkati leen giri bi 15 mètres la ci kaw donc boobu amee looy liggéey ci kaw donc ba magasin bi biñ cee monté moom lañ ko monté ndax boo ko yorul mënoo mënoo monté magasin bi xam nga yu mel nii ndax magasin bi lii ci kaw rek nekk na 200 210 000 euros la 210 000 euros yaakaar naa bokkal ki ne parce que 200 millions parce que tout tur ko manqué mooy li ci kaw nii ndax matière bi ñu ko xàddee ci kaw matière bi moo am solo. dañ ko importé. ndam ah Italie la jógee. matière bi mooy tax magasin bi du tànk. boo defoon marchandise am biir bi du tàng maanaam soleil bi. Euh, léegi magasin bi est-ce que pour denc machine la nii rek. wala non non dama non non la wax dama ko def chambre froide ci côté bi. chambre boo xam ne machine yi liggéey fii dañuy génne bagage yi di dugal ci chambre kon moom donc comme toujours machine dañuy daw ci kaw fondation bi war naa baax. ndax waaw toujours marchandise day ne ci biir. li ko xadd bunta seeral itam war na mën a am te température boo xam ne. boo tax fi laa defoon semence bi nii semence bi yàgg na fi trop parce que bu du woon loolu du du nekk donc lii. mooy semence su combatère bi. mooy bi woon fii waaw. donc kii moom ngeen gis ni moom machine la buy récolter pomme de terre. moom day récolter. waaw maanaam euh, kii monte ci tracteur muy récolter pomme de terre waaye bu récolter daf koy bàyyi ci suuf. daf koy ci suuf. léegi nag euh, ñaar am mooy man nga jël ay nit boo yëre yërëmee pour ñu far loolu muy seen liggéey. budul loolu bi bi moom day récolter pomme de terre moom du bàyyi dara suuf da koy jël moom dafa am mbànd mooy bii nii bii bii ci kanam waaw tracteur bu mag moo ko moo ko moo nekk mën a monté bu feesee moom nga gis noonu su feesee lii day wàcc pour mu tuur ko ci kaw wagon bi maanaam moom bu feesee rek da ngay taxaw moom day àndaat ak beneen oto waaw fokk wagon yi topp ko wagon yi moom bu feesee rek moom moom 18 tonnes lay def bu feesee 18 tonnes da ngay taxaw wagon bi ñoo ko sotti ko ci kon moom mu ko andi liggéey moom bu neexee man nga yëg ci kaw nga xool nga escalier ci kaw dafa am chaîne chaîne bi day jaar suuf moom day day day trier suuf si trier ñax mi sànni ñax mi fële. ndax yàgg naa ak yéen. kii yàggagul ak ñun parce que kii machine la yoo xam ne comme ni koy am sax bëriwul ndax dafa cher wax dëgg yàlla waaw ndax kii da jël ay cent cinquante millions presque. parce que. moom li nga war def yëpp moo la koy defal maanaa amul dara boo ko defee nag ñu ñëw sotti ko fecce kii ba foo sotti bagage yi ci machine bale moom moo koy trier su ko defee pomme bi mooy yéegal pomme bi mu dugg ci biir fii ay balance la am automatique la bu feesee rek day taxaw yaa xam li nga koy réglé saako vingt cinq kilos quarante kilos cinquante kilos yow yaa xam li nga réglé. dafa la am ñoo ànd. waaw moom dañuy bi ñëwee saako bi fees rek yow da ngay lonk saako bi rek. saako ngay def nii rek xëcc fi taf saako bi teg fi mu sotti boppam pomme de yaa xam ni nga ko réglé su ca su feesee rek. ci ay kilo ay kilo su paree. su feesee rek. da ngay teggi moom du indi pomme de mm-hmm. maanaam moom day peese rek bee day peese beneen bee day peese ñetti balance la dañ ciy la moom bu feesee da ngay teggi nii rek moom mooy peese boobu moom rek lañ ko fii waaw moom fii la ko tuur ci biir mu jaar fii ñëw. machine ñetti machine yi ñooy jëlandoo léegi moom booy soxla minute bu ne mën na la jox saako ndax moom peese nag ko pare donc léegi nag yow yaa yi seet nag triage bi fii ci biir parce que ñi trier pompe yooyu bi fokk ñu defar ko ba mu set ndax bu amee ci yàqu ay machine lañ yoo xam ne ah vraiment euh, dimbali lañ ci liggéey bi ku bëgg a liggéey pompe terre dimbali na ci parce que fii yëpp gis ko nii maanaam pompe terre bi fii pompe terre daf fi jaar maanaam bi nga xamante ni ne mooy pompitel bu baax bi. bu sew bi fii lay jaar. bu sew bu dijj bi jaar boor wàcc fii. pompitel bu sew bu baax ci fekk day sonx maanaam dem dañ koy réglé calibre bi ngay réglé yaa xam calibre bi nga soxla nga xam ne bu góobu dugg saako bi nga réglé ko muy jaar fii pompitel bu sew bi jaar donc bu dijj bi moom fii lay jaar dañuy contrer la bu romb bu bu sew mënoo wàcce rek ñoom waa jaa ngi wàcce ci bu bu ñu nee boor bële dana gën a leer pour ni muy wàccee. donc machine la boo xam ne donc euh, féetam mbalit mi fi jaar mbalit mu fi jaar suuf bu am fii. Ah. wala mbalit bu am day jaar fi wàcc. moom it da ngay wut teg fii loo xam ne toujours giri bi moo fi ñëw moo daa ñëw teg fii bu feesee danga maam nga nga nga nga tam tuuri dellusiwaat moom day wàccee suuf seeg yu boo dee mbalit yi salte yëpp benn du àgg fële ci kaw. Mhm. fii nag la nit ñi nit ñi yéeg. Ah. nit ñi def triage moom dañuy yéeg fii toog fii ñett nit a fii ne wala ñeent. feeñet ñu wala ñeent ñu tiim affaire bi affaire bi daw ñu tiré yu bon yi boo tiré sànni fii fii day am kees goo xam ne mooy def yàqu yi donc loolu mooy grippe almaa yi ñoo koy liggéey machine yi mu bële yëpp hmm. donc kii itam machine wu kii moom machine mooy bàcc mooy bàcc gerte. mooy bàcc waaw bii moom yaay sonn yow mi ci def yow ci def kii bi yaay sonn moom yaay sonn. tibb rek def fii. yéen daal lu ngeen def fii yéen ñi def fii daal yéenay sonn moo daal moytul daam yi gis nga daa yi ni mel dafa garaaw waaw moom boo xëyee boo nit ñi luñ gën a bari rek moo gën moom loo ci def rek mu génnee mu génnee ngooñ mi côté bi génnee gerte gi boor bële te kii xamal la boo xëyee mooy daw donc kii tam ci machine bi hmm. moom fi moom la tracteur yi fi la ñu arrière li maa fi def pour provisoire maanaam amagoo porte moo tax ma def ko fi bañ ma dañ koy dindi tracteur fi tap bi boo koy pour mu dem def liggéey boobu ma la wax noonu voilà donc kii am machine mool la moom itam day mool maanaam pour waaw brique ya xam brique yi nga bëgg moom doxal day dox day dox ki rek am ñu ko yor ñoo xam entreprise dañ ci ubi maanaam di mol di jaay parce que so xasse am ciment am suuf rek am xeer mom toog moom du mol yo xam ne ngay dóor sa loxo moom mom moy def lepp soo xasse ki bouton yaa ngi nii boo ko star baangi ni hmm vibreur baa ngi nii day vibration lay def day vibrer biri bom mu ta ba am avancé moy avance avance moy avance tourné njeetro moy ngar yer jëm gëna boo ko bëgg arrière jëm mom lay neen di dem rek day neen di dem maanaam boo boo ci mool moom man nga xëy mool lu bari waaw yooyu tam ay produits la yoo xam ne donc fi mooy dem ci kii bi ci pomme bi li gis nii fi mu toll nii ñaata bidon la neuf bidon la tubaab ci kaw sax dafa ko may neuf neuf bidon yi mu ngi jar un million sept cent cinquante mille xam a tey yu mel nii boo boo xawante rek ni daan ah de daa dof waaw. fu mu jógee ban réew la jógee. yii am na ci lu jógee France am na lu jógee am na lu jógee sax fu nekk ci réew rek ci àddina bi parce que yii dafa lay jox rendement maanaam ay produits la yu la jox rendement parce que eh, soo ko xamul yii mën a goo agriculture ba mu sotti. Baye Pape ndax Témé agro dafa am ay partenaires yoo xamante ni ci kaw. ñoom lay jëflanteel lu ci mel ne wàllu machine. Mhm. ndax boo ñu xoolee sa machine yi. Mhm. Euh, marque bi dafa doon benn. Mhm. te it euh, même produit yi ngay utiliser tamit dañoo gis ne te mu doon ay yoo xamante ni benn produit bi la. waa ci kaw moom dañuy jënd. parce que machine yëpp Allemagne lañ ko jënd. amu ci benn machine boo xam ne maanaa ña koy liggéey ñoo ñu ko jox. partenaires yi nam nag mooy partenaire yoo xam ne dalay dimbali ci yow maanaam partenaire boo xam ne ni ma ko waxee rek daañu ci àgg mooy paap lan nga soxla wala ngay wuti xaalis banque mu lay mu teg 5 pour cent wala 20 pour cent banque bi sax 12 pour cent lay teg wala 14 pour cent xam nga bari na machine yi bi ma koy jënd dafa dafa dañ ma lebal xaalis pour ma jënd ko joxuñ la conditions yi nga koy fayee mu ngi lay defal loolu mi ngi lay jàppale te du sénégalais da la rek xam ne yow mii jum jox la voleur lu mat un milliard na la dama jëndi marchandise machine yi soxla kooku Sénégal gi bar na ñu ko yor sax ko def il faut dire la vérité donc ñun nekkul ne jub rek moonu may lu mën a am. waaw Pape moom li ñuy wax ku baax la ku neex a liggéeyal la parce que depuis treize ans ñu ngi ànd te amul benn jafe-jafe te dafa nekk nit koo xam ne ku bëgg transparence la moom lépp da koy teg ci ci lu leer. bu njëkk bi mooy jullit la. te xam na gëdday nit dëkk bi bu fi ñëwee am na ñëpp kóllëre bàyyi la ñu ne ko fi maye na fii sëy def ni fi lépp mosul ameel kenn xaalis mosul ameel kenn bor ñun ñii di si liggéey ku si am soxla mu lebal la nga liggéey ak moom boo paree delloo ko li nga liggéeyoon. jullit na dëgg na baax na ñu mel moom la suba. ku neex àndal ku yomb àndal. nak li ngeen bokk rek yow son du la si fekk xam nga mag bu tollu na man bëgg mo ngi liggéey euh fukki at ak ma sha allah sha allah man man ko ma dara lenkam yu war na tak mu liggéey man ko ndax dama liggéey CSS ba ma traité ma doon ñu fi waaw kon nag bi gisee ma yëpp mun ànd ak moom mu ngi Allah mu ngi and gudd ak euh ma ngi def suma rak mom mo ngi def kilifam dafa nekk àndal bu doon keneen fekk keneen bu ma nekkee ma këy bu ma nekkee ma wàcc bu ma nekkee ma gont bu ma nekkee ma euh, tukki bu ma nekk lu ma nekk ma def hmm, nga kooku euh, nit mënul baax ba paas foofu bi weer dee mu fayal du la manqué la fifty euh, papa mun naa ci wax moom lu bari waaye sama kol def fees dël hmm. nit bu baax la yàlla seet na ko de yàlla moo ma tax wax nit bu baax la nit bu baax la nit bu baax la yàlla moo ko bàkkal du du du xolam moo yàlla moo ko bindee noonu te lu mu la wax dina la ko defal lu mu mënul defal wax mënul fépp nag foo xam ne fii nag nit gu baax nga fa teg tànkam teg na fa tànkam nit gu yiw la nit gu bëgg dëkk bi la nit gu nu fonk la nit la goo xam ne gi xeebul kenn man ngay pap pap man maa ngi liggéey fii nii pap la tax ànd na fekk bàyyi na liggéey bu yàgg ba yoroon liggéey <laughs> dëkk ba yor na sant naa la mu jàpp liggéey ba léegi papa tax andi woon fépp ba beneen liggéey bu yàgg waxoon ko sax sax daaw fale mu ngi taxaw sant naa ko lool ma nga dugg fa léegi mosuma wax dara jàmm rek jàmm rek nit xol dëgg rek su ma xol noonu mu su fi tàng bëgg na noonu itam bu jóge fii nii ñibbi rek bàyyi dem liggéey feneen gis itam bu jóge fii nii ñibir ifaran fi sax ñibli def hmm sant nako lol man sant nako alla de sant nako lol man suma xol mum suma xol non ma nga liggey ba legi mu so tank waaw yi gis nit de mu na liggey de mu na liggey juro yak man legi rek la xam man ni rek la xam man xamu sa nos parce que yeri yeri do ko ci bi dekk fi ni man liggey rek liggey jog liggéey moo tax jógoon léegi la léegi la xam liggéey rek mu ngi judd la léegi liggéey la xam nekku ne ñàkk liggéey ñu jóge bi tey ma ngi liggéey dëkk ba billaahi alquran